mën naa ne mën naa ne parce que ñoom ñooy international bi. <laughs> Ah, ñoom. mais ñaar yëpp Tim Gala moo gañe woon. Tim Gala moo gañe ñaar yi. Eh, dañuy eh, dem supporté Tim Gala. non man maa ngi ci kuy ji kuy gañe que parce que parce que ñoom. Euh, ñu ngi nekk ci média bi. mais ñoom ñoo ñu gañe woon ñoo ñu ah, topp woon. Ah. kon nan def. ñoo Eh, eh, eh, non non ma nekk biin ji xam naa li ma la wax alors tey li nga xamante ni moom mooy promoteur bi nga nekk ci wàllum football lekk nga ko def wala dafa am ci yeneen domaines yoo xamante ni nii da ci ciy tëgg ay événements. waaw pour l' instant instant bii nii am nañu ay événements yu bëri. Mhm. mais ci football bi comme si lañ débuté. Mhm. mais après fur mesure ñuy dem. Mhm. mën nañ xalaat ci yu bëree bëri pour liggéey si. waaw parce que ay euh, dama nekk benn équipe boo xam ni. ñoom ba pare. danoo danoo bëgg li ñuy def. Mhm. waaw ku ci nekk day indi xalaatam ñu xool lan mooy lan mooy gën a dox ci période boobu noonu. Mhm. ñu def ko. d'accord waaw si dañuy xool ci. ci ni muy doxee ak réew bi ni muy doxee lan lañ gën a soxla tendance beeg yooyu noonu ñu def ko mais daal lépp ci football bi lay la la la déparé daal. d'accord d'accord ok. Adja. Mhm, alors mën nañ xaar comme bii mooy première édition. HLM euh, n'est-ce la. Euh, comme tey ki nga xamante ni moo ji Cheikhou Kouyaté jege na foofu. Mhm. mën nañ xaar tey comme par exemple bii di ñëwaat nga def ko parrain wala aussi yaa ngi am relation ak joueurs yi nga xamante ni ñoo ngi fii nii ñu leen di xaar ñoom ñuy ñëw ci euh, programme yi. Mm-hmm. waaw waaw comme ku mel ni man HLM 5 comme Mbaye Diagne foofu la dëkk euh, danoo créer benn match de gala boo xam ni. Euh, ancien jour aslem 5 yi ñoom ñoo koy joué ak euh, sama benn grand bu baax Amadou Gueye 50 borom tapis vert moom mooy joué match de gala bi léegi match de gala boobu nag euh, woo nañ ci Mbaye Diagne ba sax dañ ko ko tuddee parce que comme ci koñ bi la dëkk dañ ko koy tuddee woo ko moom nag nekku fi mais dañ ko koy tuddee pour sargalee ko ko parce que aslem 5 waaw amuñu amuñu lu ko sut bi aslem 5 en tant mhm. ci ci loo xam ne ci lu jëm ci football la d'accord d'accord mën yi yoo xamante ne di nga leen jàppale comme nit ñi ñuy def seen koñ jàppale xale yi ut école di leen accompagner. Mhm. parce que xale yëpp dañoo bëgg football. waaw man nii ba ci nii rek maa ngi ci loolu parce que parfois su ma gisee benn talent boo xam ni xam naa ni kii nii boo ko jàppalee mën na mën na am dara ci football bi damay def le maximum pour jàppale ko parce que am naa lu mu dee dee dee football bi am naa ci tuuti tuuti connaissance nit ñi xam nañ ma ci maa ngi ciy maa ngi ciy def loolu tamit waaw. ok euh, mais euh, pour juste pour info rek pour wax ne que tamit que tournoi bi euh, donc Dakar Sacré-Cœur lay ame voilà donc terrain Dakar Sacré-Cœur lay amee donc demain dimanche le final bi donc à partir de 21h pour ñëpp ñu nga xam ne bëgg nañ ko suivre donc final bi dina amee fi nga xamante ne mooy Dakar Sacré-Cœur à partir de 21h bu ngeen ñëwee comme ni ko waxee am na ay surprise yu fa am mais aussi di ngeen fa fekk ñoo xamante ne ay anciens internationaux nañ ak team bi nga xamante ne mooy euh, team euh, PNG euh, su dee ama amaatu leen question par rapport ak voilà. lan moo tax mu def vingt une heure est-ce que nit ñi dinañ ñëw heure boobu pourquoi pas comme que final la woon nga wàccee heure bi tuuti pour nit ñi gën a mën a ñëw. waaw waaw dañ ko bëggoon wàcce mais contexte gars yi dañuy am ñoo xam dañoo dem ziar général bi comme suba ziar général la. c'est vrai ziar ñu ni dañ koy xaw a yéegal tuuti heure bi à partir de 19h euh, dañuy commencé tournoi parce que match de gala bi mi ngi mhm. commencé à de 20h. Mhm. léegi final bi moom mooy commencé 21h. waaw contexte boobu moo tax ñu def ko. mais bëggoon nañ ko mu teel a mu teel a dix huit heures wala dix neuf heures. waaw ah, mais comme ziar général bi ñu may doonoo bëgg dem te doonoo bëgg a. <laughs> assister final moo tax ñu sóoraale loolu. Euh, mais Birima bëggoon nañ xam aussi yow euh, tournoi bi nga xamante ne organisé nga ko euh, say say say propre fonds ngay demee wala da nga am ay partenaires ñoo xam ñoo lay accompagner wala. tournoi am na xaalis. Hmm. xaalis ah. tournoi bi nag. mi ngi yoola de. funtu leen xaalis xëy na xaalis. xaalis de. non gars joxe gars yi xoolal kii dañuy dañuy participer xoolal ay ay millions la xaalis xëy na leen. xaalis bi ngi xeeñ. waaw. dina ma dina ma nan waxal waxal rek. ah ca biir ma wax ñu nag waa partenaires yi partenariat yeeg yooyu. mu ngi dafa nekk loo xam ne comme terrain Dakar Sacré-Cœur euh, euh, da ngay fay pour jouer léegi nag pour pour ñu mën a am xaalis boobu noonu ñuy fayee terrain bi arbitre yi da nga leen di fay euh, assistance médicale beeg yooyu noonu yëpp da nga leen di fay équipe bi foog dañuy joxe caution moo tax équipe yi ci nekk ku ci nekk joxe woon na caution mais loolu noonu dañ ciy prévoir lu ñuy fayee terrain beeg durant mois bi yëpp suñ dépensé yëpp dañ ko ci dañ ko ciy def waaw ñu ngi doon wër euh, ay sponsor mais fur amoon nañ benn sponsor koo xam mi ngi ci doon jàpp euh, doyul nag muy Sangomar mi ngi ci doon jàpp bu baax mais instant bi nii tamit am nañ ñoo xam ñu ngi ñuy jàppale comme ku mel ni Ousmane Sy euh, mi ngi ciy jàpp ku mel ni Babacar Gueye ancien international moom ci team Gala la bokk waaw mi ngi ciy jàpp bu baax a baax a baax ku ci mel ni Amadou Gueye 50 mi ngi ciy jàpp ngi ciy jàpp ak ñeneen ñoo xam ni wax nañu dinañ ci jàpp xam naa le jour bi allah dinañ leen gis. incha allah acca góor ñi jigéen ñi nag. mën nañ ci xaar seen bopp jigéen ñi moom nañ ñëw rek rafetal bi organisé woon nañ ko jigéen ñi. jigéen wax lu neex a jigéen jigéen yëngal rek. jigéen gis gis xeetu yaal yoo xamante ne. jigéen ñi nañ ñëw waaw nañ ñëw assister waaw daanu yi <laughs> ngay dégg jigéen oh. suñu jigéen dañu doy waaw jeex na mu ngi noonu. atiwaat maa ngi sant bu baax a baax sañ ax ma macha parce que depuis le début ba ma xalaatee projet bi ba léegi. ma ma mm-hmm. ciy jàppale moom ma ci yokk xalaat. Mhm. defal nii defal nii defal nii depuis le début ba léegi nii mhm. lépp lu mën mi ngi ko ciy def kon maa ngi sant bu baax sëñ Axma waaw mhm. ah, di nuyu tamit bu baax a baax euh, aaw duulu aaw moom tamit moo ñuy conseillé comme ci marketing ci ci wàllu football lay liggéey ñu ci bari def leen di def leen di def leen di parce que comme bii mooy première édition bi waaw da ngay soxla ñu lay épaulé di la jàppale expérience waaw di nuyu tamit ñi nga xam ne ñoo nekk sama ginnaaw ci staff beeg yooyu noonu ku mel ni Pape Alex maam Faama. a Kara mm-hmm. Ayda Faye waaw Adi Kara mm-hmm. Papa Diagne mm-hmm. ak ñi nga xam ne ñëpp ñëpp ñëpp suma limee jum ñi nga xam ne ñëpp ñu si doon jàpp depuis le début maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm parce que yombul woon ah yombul moom dana ko yombul moom euh, dañ lay bàyyi rek nga tàggoo sa mot de la fin ak bu amee rek lenn loo xam ne bëgg nga ko ci yokk ak ñoo xam ne bëgg nga leen woo ci li nga xamante ne mooy euh, finalu tournoi bi. waaw final bi nag maa ngi woo ñëpp mhm. mhm. ba 6. Ah, mais comme 5 moom fa laa gën a kii. woo maa ngi woo ñëpp nañ ñëpp ñëw waaw assister final bi. <laughs> Uh-huh. waaw xam naa final bi dina neex loolu liñ ci bëgg a def yëpp. du ñu mhm. mën taxaw fii nii wax ko. mais incha allah rabbi ku fa ñëw di xam surprise la daal ay surprise yu bare bare foog nga ñëw boo ñëw eh, ci xam dara. marketing marketing noo yow birima sax yow après final bi yow dangay ñëwaat. incha allah comme ça ñu daal di ñëw xam nga commenté waat xool ku gañ daal di commenté waat. waxtaanee ko comme ni ko gis. su tournoi daal di koy décortiquer Adja Assou daal di koy kaa. Ah, maa leen di sant bu baax a baax di leen ah, ah. gërëm ci émission bi. émission bi nice na trop di leen ñaanal ngeen am jàmm ak tawféex. ñu bokk ko ñu ñëpp. waaw amiin amiin aca kontaan voilà tournoi baa ngi noonu nag donc euh, demain la incha allah le 21 euh, nekk fële nga xamante ne euh, mooy terrain Sacré-Cœur à partir de 21h donc le final bi ngeen dem rek daal di koy assister dina am ay surprise di ngeen fa fekk ay anciens internationaux Dakar Sacré-Cœur voilà mu ngi noonu donc foofu lay xewee au terrain de Dakar Sacré-Cœur demain dimanche avril. avril euh, à partir de 21h donc final bi dafay nekk team gala ak team PNJ donc sa promet euh, je vous le conseille dimanche bi. bu ngeen jullee timis ba pare julli gée yooyu xam nga toog relax tuuti 21h rek ngeen daal di daw euh, Dakar Sacré-Cœur dem seetaani ji ko donc dañuy dem rek daal di dalu dugal clip ki nga xam ne mooy suñu invité le temps que ñu dalal Moustapha daal di fas yéene waxtaan ak moom. waaw euh, waaw de euh, euh, entrée bi nu muy nu muy nu muy demee entrée Moustapha bi xam nga yow damay bëgg. Euh, kii bi. waaw show la ñuy def. show la ñuy def de. non yow dama lay bàyyi nga dalal nga dalal Moustapha. l'international Moustapha nga dalal ko. teeru ko teeru mu ñëw xool nu muy ñëwee nu muy duggee. waaye balaa ñoo dalal. balaa ñoo dalal Moustapha Birima balaa ñuy tàggoo ak yow. Mhm. Euh, pour ñi nga xam ne dañu bëgg assister si kii bi ci tournoi bi nu muy demee sur entrée la wala. non non sur invitation mais ku ñëw ba foofu rek dinañ la orienté. ah d'accord kon ku bëgg mën na ñëw bu ñëwee ba ci porte bi ñu après dinañ la orienté après dinañ la orienté incha allah rabbi aca mu ngi noonu donc ñoo ko déggandoo est-ce que amul benn numéro booy joxe aussi pour ku ñëw ba foofu ci numéro ban lay woote parce que na ñoo xam ne bon on ñoo xamante ne bëgg nañ ñëw assister donc su amee numéro boo xam ne mën nga ko joxe comme ça ku ñëw ba foofu mm-hmm. euh, bu la mënee joindre comme ça nga orienté ko waaw mën nañ woote ci numéro bi 78 119 69 41 d'accord 78 119. 69 69 41 d'accord 78 119. 69 41 voilà donc numéro baa ngi noonu képp koo xamante ne bëgg nga assister ci finalu tournoi de la fraternité donc bu ngeen demee ba Dakar Sacré-Cœur ngeen woote ci la 78 119 69 41 bu ngeen demee ngeen wootee comme ça ñu orienté leen ngeen mën a dem assister ci li nga xamante ne mooy final bi donc dañuy euh, euh, dugal clip bu ki nga xam ne mooy Moustapha nekk suñu invité tey en tout cas c'est un plaisir ñu recevoir ko ci plateau Weekend Show ñu bàyyi daloo daal di koy xam nga dalal ko ko yooyu yooyu noonu. la demee alors merci beaucoup <laughs> amis chers fidèles téléspectateurs euh, xam naa ni ñi toogoon seen kër boobu ba tey ñu ngi xaar euh, ki nga xamante ni moom mooy l'international Moustapha euh, booy bi xale la dafa nekk koo xamante ni en ce moment bi mu duggee ci la musique sénégalaise dafa nekk ci benn compétition compétition nag ku ci génn daal di ciy dem ba final wala nga dem ci ba demi-finale nekk nga koo xamante ni nii am nga talent bu nekk ci yow mu ni non non mooy sama talent ami cher fidèle téléspectateur dama bëgg yéen ñu toog seen kër ngeen daat ñuy bàyyi nopp ñu daal